del julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam bés bu ne waaye rawatina bésu aljuma ak guddi aljuma yonent bi salaa salaam moo lay garantil macha allah bés penc mu mën a intervenir te loolu dafa baax ci ñun ci àdduna waaye leer la suñu bàmmeel ak bés penc aljuma màgg na ci yàlla ba nga xamante ni ci la bind aadama alayhi salaatu wasalaam suñu suñu maam ci la ko dugal aljanna ci la génn aljanna te ci bésu aljuma aljuma ci la suñu maam aadam ci la ci la génn àdduna bésu aljuma bés penc du taxaw lu dul bésu aljuma allahu akbar bés penc bésu aljuma la te nag am na waxtu boo xamante ni ci biir aljuma soo ci ñaanee yàlla du delloo sa ñaan allahu akbar wax yu bari ñëw na ci mais lu gën a bari ci wax yi nee nañ mooy après tàkku tàkkusaan maanaam diggante tàkkusaan ak timis kon nañu ñaan te bari lu ñu julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla mi ñu bind day julli ci bi sallallahu alayhi wasallam malaaka naka noonu yàlla ne nañu julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنم على نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وأسوتنا ونور قلوبنا صلى الله عليه وسلم nañu julli ci moom ngëneel la ci ñun fii waaye day tax yàlla tamit génne la ci ay problème macha allah àdduna ak problème àllaaxira yal na yàlla yërëm ñu